dal leen ak jàmm Boubacar Camara ak audience bu mu wuyu ji Macky Sall bu dee coow li dafay doog a tàmbali jëlagul tànki jeex ndax yéenekaay ci la xëy ñu jël la tribune ci xëtam bu njëkk Macky explose la coalition Sonko loolu la xaatim mooy ne Macky Sall tas na tasar coalition ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko yéenekaay ji di ñu xamal ne taskatu xabaar bi di Adama Gueye moom moo fësal xibaar bi jëm ci ne ki nga xam ne moo di Boubacar Camara Macky ambiance boobu ba léegi dox diggante Boubacar Camara ki nga xamné ne di Macky Sall le quotidien mom xey bind ci xëtam la vérité jotna Manam jotna ñu xam dëgg gi ci bobé audience bu ñu ci quotidien Bruno Derneville mi nga xamante ne moom moo jiite coalition jotna suñu naataangoo yi di ñu wax né mom yëgul won audience wuté ak lool Ousmane Sonko mi nga xamné ne moom nako ba léegi bu ñu sukkandikoo ci quotidien ñu yene kay bobu xëc vox populi ñom ñu ñuy xamal Songko. Ousmane Sonko aduna ci takaliko mak Boubacar Camara mom Ousmane Sonko muy wax ci yene kay bi takaliko mak Boubacar Camara du matanté du xiiro du ngayo du kolere gu dok waye tanefu boubacar camara la ñu joge ci waxu audience diggante Macky Sall ak boubacar camara xëc journal bi di las mom mu ñuy xamal ne ci jamono yoyu maître moussa diop mom mu ngi mer ba ci li ko ci bop dakar dem 3e mandat bek idrissa seck mi jégué Macky Sall maître moussa diop yéy na ci yabbi ndax ki fi jité won dakar dem dik. mom mu ngi wax ne bu ko biroon ne garab gi ñu jëmbatoon ba dara dul dara arrosé ko ba mag toll ni mi toll bu juré ay meññef dañu koy dajale jébbal idrissa seck ak ñu melni ni mom. maître moussa diop du bok ci ñi doon toppatoo garab googu njiitalu Dakar dem dikk ba woon di ci yokku ne wax li Macky Sall jàpp ne waxuwul ci ñetteelu mandat bi moom moo ko yóbbee li mu nekk maître Moussa Diop di ko ñaawlu ci yéenekaay bii di laas ñu puus yéenekaay boobu xëcc journal bii di l'enquête moom mu ñuy xamal ni Khalifa Sall ki fi nekkoon maire bu Dakar moom dina bokk ci jongante gox-goxaat yi ñu jëm l'enquête di ñu xamal ne ña ko cay boot mooy GLB Géejawaay la bokk ci noonu yéenekaay bi di ñu xamal ne ci week-end bi Khalifa Sall Géejawaay gi mu nekkoon juróom benn ci ay maire socialiste bokk nañ ca ko fa koy yeesal di xam le ne di xam le ne pénkub dagana ak bët gànnaar gi ñoom dañu mer ci ki nga xam ne moo di maxtar siise la ñu seppi loxoom ci gouvernement boobu Oumar mi ñu def jëwriñ dénk ko miin ak géologie Makhtar Cissé ñu seppi loxoom ci ndab li dagana da cee mer ba futt bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di laas l'observateur mom bind ci xëtam bu ñëk front républicain yene kay gi duñu xamal ne Macky Sall nga yok doolem bu baax l'observateur di wax ne Macky Sall li muy def jamono ji modi ap plan bo xamantene ne AFP wala parti socialiste buñu naré naree randu ci wétam dana am ñeneen ñu ñëw fatt kambu yu ñu nara bayyi bàyyi ci lepp luy pexé mu ngi koy def jamono ji ngir wañi doole Ousmane Sonko ci bët saalumu réew mi yene kay bi di Walf Quotidien mom ci jafé jafé kom kom yu réew mi di dundu la xey journal bi di wax ne jafé jafé kom kom yi ñuy dundu jamono ji mbar du dem ba melni ñu fi dundoon ci atum 1980 ndaxte yéene kaay yéenekaay bi ñuy xamal ne modi giro ak ñamu sekkal comité bi nga xamne ne ñoy xex ngir ñu bal Afrique ay borom ci sen dajje bi muju ñi ngi wax ne jafe-jafe kom kom ñuy dund jamono ji mën nañu yobbu ba ci plan d'ajustement structurel journal L'As mom di wax ne fokk ñepp andando xex ko ngir ñu mëna bal Afrique ay borom Sud Quotidien mom ci limu delu ci moy ñaxtu bi won samedi ci place de l'Obélisque journal bi di ñu xamal ne ay junni junni nit ñom ñoo gennon kérok ci mbedd mi tax kay yu bind ci xëtam wu ñëk la fatwa de Dakar yonenti bi ñi dessiné di foyé ak Emmanuel Macron yi mom mo génné sénégalais ci mbedd mi loolu lañu sud quotidien xamal vox populi mom di xam ne ña nekkon kérok ci place de la nation ñaawlu nañu téwa yu njitu réew mi di Macky Sall bobu lé bërëb ngir àndandoog ñom ñaawlu yoyé jëf ak yoyé kàddu yene kay yu genn tay yamuñu rek fofu ndax addu nañu ci jangonté palum njiitum réew ya amon ci états-unis ñu ñu xamal né joe biden mom lañu fal ñen fukk ak juroom bennelu njitu réew états-unis d'amérique ci nonu le soleil di wax né joe biden sacre d'un persévérant manam ku mëna xoos ci bëgg-bëggam faluna budé vox populi mom limu bind moy amérique dak na donald Trump mi lànk kandaare ne du dem jamono jooju yéenekaay gi di quotidien moom di wax ne l'Amérique c'est de tërëmp maanaam Amérique jóge na ci nax yi mu doon nax boppam ñu yendoog jàmm